cest ñu kenn amul abaluñu bët bañ fu fu la neex ñu ñu xool kenn abaluñu nopp ba bañ am ñu déglu wala ay tànk ba fu la neex ñu dem non. vous êtes libre. Mm-hmm. bi ñuy dem parrainage amul benn parti politique bu ñu dimbalee benn benn parrain. Mm-hmm. dañoo dem parrainage wuti suñu parrainage ñafe ko am ko maintenant nag euh, ay choix la on n'est plus avec Macky Sall mais nag on on est le pays lépp loo xam ne gis nañu ni. bu ko Macky Sall defee ah mu indi jàmm réew mi loolu amuñ ci problème moo tax ñun on était présent au au au dialogue on était présent. le seul candidat validé bu nekkoon ci dialogue bi et heureusement. parce que bu ñu fa nekkul woon. tu sais c'est candidat validé xam nga Amadou Ba ko validé. bon évidemment naturellement Amadou Ba. mooy voilà le seul candidat de l'opposition laa bëgg a wax. alors bu ñu fa nekkul woon. qui est-ce qui allait les droits acquis personne c'est-à-dire li doon xew mooy bu ñu bu fa nekkul dem ci commission yi sunu candidat bu euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne wax ci kaw ni il faut qu'on préserve les droits acquis des 19 c'est-à-dire bu fa kenn nekkoon ci opposition bi. kenn du ko défendre li am kenn du ko défendre. xam nga luy jàll amoon na beneen position maanaam reprise totale du processus. waaw ñooñu ñu ngi ci ba léegi. non reprise totale du processus mooy bu loolu jàlloon. mooy yéen yéen 19 yi da ngeen di duggaat ci biir. waaw ñu reprendre lépp loolu loolu passé buñ ko de. non non non ça saa ça on l'a dépassé. Hmm? parce que li dialogue bi proposé mooy les 19 là ñoom dañ leen di conserver. Hmm. maintenant ñun li ci yokk mooy comme dafa am ay coowu double nationalité ak yooyu ak coowu corruption nañu seet te aussi les 19 là nañu xolaat seen dossier loolu mu yokk dañ ko ci. ba xam kenn amuñ ci double nationalité ñu vérifié ko. ah 19 bi ñu saytuwaat. waaw ñu saytuwaat seen dossier. waaw d'accord ba xam ñëpp fay nañ lempo. ba xam aussi amul. double nationalité ku jàll waaw double nationalité ku jàll te a jàll. waaw parce que ñu bëri ñu ngi wax ñu ngi ngi wax par exemple Diomaye Faye a jàll. ah bon waaw ñu ngi koy wax mais loolu yooyu yëpp dañ ko saytuwaat. moom la nañ koy ji kooku la li ñu ko wax mooy li ñu li ñu wax mooy comment euh, pourquoi mu nekk. ci prison bi. ñu teg ko ñu teg ko li mu li ñu ko teg mu jàll. léegi fu ku ko signeel euh, les attestations la ku ko signeel ay segam yooyu yëpp donc c'est c'est tout un débat. Ah. mais c'est pas c'est pas c'est pas important li am solo mooy dañu ko vérifier waat parce que comme am nañ deux magistrats yoo xam ni nee nañu euh, candidat Benno Bokk Yaakaar moo leen corrompre loolu war nañu ko xool parce que dañoo yeewu président de la république ni am na soupçon de corruption. ci conseil constitutionnel loolu loolu moo doxal élection muy ñu report est-ce que loolu dañuy ñëw rek effacer ko noonu. dafa war a dafa war a leer ndax loolu mooy jël situation bi. parce que si si bu amul woon soupçon boobu ba ñu def ay commission mais kon heure bi fekk nañ ñu préparer deuxième tour mais est-ce que dugg rek ça veut dire que kon le trois le le deux juin le premier juin. non wala élection jeex na. non ba deuxième tour. non deuxième tour kii d'accord d'accord alors le premier juin bi di ñëw. reprene benn candidat day jóg rek jógaat moom tamit ne way amaat na soupçon corruption ñu tuxaat élection bi ah, il faut régler ça il faut régler cette question là et nous attachons beaucoup de prix à ce que ñu leeral affaire corruption bi ndax am na ndax amul ñu leer mais nañ ko leeral parce que boo indi rapport bi mais yéen